أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما ahmaduhu subhanahu wa taala hamdan yakunu bihi muxtasa wa ashhadu an la ilaha illa allahu waxdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh addaaxi ila ridwaanihi wa qufraani wa ala alihi wa saxaabatihi qurri lmayamin wa ala taabixin wa man tabi'ahum bi ixsaanin ila yawmi ddin amma baad أيها الإخوة المشاهدون الكرام والأقوات المشاهدات في كل مكان أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi topp suñ programme diine ji fii ci ay Africa TV ñu ngi leen di nuyu gannaaw bi ñu musloo yàlla ci seytaane sant ko moom borom bi tabaaraka wa di cër bi nga xam ni moom la yàlla moom ci jaam bi ñu julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla fayal ñu ko fayal ñu njobootam waaye fayal ñu ay saxaabaam gannaaw cant googu mbokk yi ak sëlmal ci Mustafa alayhi salaatu wa salaam ñu ngi leen di nuyu nuyoo bi gën a tedd ci mboolem nuyoo waaye gën a sell ci mboolem nuyoo waaye gën a jotal ci mboolem nuyoo di nuyoo bi yàlla joxoon sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñuy ñaan nuyoo boobu li mu ëmb yépp ci jàmm ak li muy dox ci yërmande yàlla ak li muy dox ci barke te ñett yooyu wax naa ne bindeef bu nekk soxla na ko bindeef bu nekk soxla na jàmm waaye bindéef bu nekk soxla na yërmande yàlla waaye bindeef bu nekk soxla na barke yal nañu yàlla may jàmm yërmande gunge ko waaye barke gunge ko ñu ngi ñaan suñu nuyoo bi yal na fekk ñépp ci jàmm mu mel ni dellu siwaat nañu ak yéen ci seen programme diine ji tey nag ñu fas yéene waxtaane waat tomb bu am solo bu jara bàyyi xel bu jara jàngat moo di متى الراحة li ñu fas yéene waxtaan yi mooy keñ la doomu aadama di noppalu ci àdduna bi keñ la nit di noppalu ci àdduna mbokk yi ndax noppalu muy noppaleku ndax am na ci àdduna la loolu la ñuy jàngat ndax àdduna këru naflaay la ndax àdduna këru noppaleku la ndax noppaleku am na ci këru àdduna walla amu fi bu dee am na fi kon kañ la nit di noppaleku kañ mata raaxa mbokk yi yonent alayhi salaatu salaam dafa mos laaj jibril laaj bu am solo yonent bi def ne jibril ndax dang dee reetaan ndax dang dee ree jibril na ko waaw danaay ree yonent bi ne ko kañ ngay ree lan moo lay reeloo jibril alayhi salaatu wasalaam ne yonent bi yudxikuni ibnu aadama fa huwa min awali ma yulad illa an yamut yabxasu an cheyin lam yuxlaq fi dunya yabxasu an irraaxa wallahu taala lam yaxluqi raaxatu fi hadihi dunia bal xalaha fi l axira jibril ne yonent bi danaay ree te bu nekk sax ma ree sayiduna muhammad na ko lu lay reeloo jibril na ko nit ñi ñoo ma def reetaan nit ñi doomu aadama yi ñoo may reeloo bis bu nekk suma leen xoolee rek ree yenent bi ne ko lan moo lay reeloo ci nit ñi mu ne ko doomu aadama bu juddoo gane àdduna li tàmbulee keroog mu juddu ba keroog muy dee mu ngi dàq benn affaire di wut benn mbir fi juddoo ba fi muy deexee benn mbir lay ut bu xëyee moom lay ut bu ngoon jotee mu sol dàllam di ko wut te xamul ne mbir moomu muy ut loolu amul ci àdduna moo tax doom aadama yi def ma reetaan nga xëy di uti loo xam ne amul ci àdduna gont di daw di uti loo xam ne amul ci àdduna nga nekk ci sa giiru dund bañ xëy tëral la benn palaas nga dee te mënoo faxe ba li doon ut noonu nga am ko mu ne loolu moo ma def reetaan doomu aadama yi dañuy xëy ñoom ñépp ñoo bokk benn soxla bindee fi yàlla yépp ñoo bokk benn soxla xam naa suma ma la ne nit ñépp ñoo bokk benn soxla dina la jaaxal ndax nit ñi dañoo bari te wuute te bëgg-bëgg yi dañoo wuute waaye bëgg-bëgg yu wuute yooyu yépp soo ko dajalee ca cappaandaw la fa ñuy daje benn soxla la nit ñëpp ñoo bokk benn soxla ñaari soxla amul ci àdduna de ñetti soxla amu fi ñeent ba juróom amu fi benn soxla la bindeef yi di ut bi yàlla sañcee àdduna ba ilaa yawmil qiyaamati benn soxla boobu lañuy wut ba keroog ñuy daje ji ci péncum yàlla benn soxla boobu moom la ñëpp di xëy di kuuti moom lañuy ñuy gont di kuuti xam nga mooy lan mooy noflaay mooy noppaleku mooy dallu ñépp loolu lañ bëgg koo gis mu kër këri di jàng di deexoo di dem school di jàng li tax muy sonn yépp mooy dafa bëgg bu ëllëgee mu noppale ko koo gis muy daan doolem ci àdduna di kër-këri soo ko laajee lii lu ko waral daf la naan dama bëgga noppaleku ëllëg koo gis ci àdduna fu muy jaar ba bu ëllëgee mu noppaleku moom lay ut moom lay xelaat moom lay jéem ñépp nag ku ci ne yaa ngi seet fooy jaar ba sa ëllëg mën a baax sa àdduna baax sa lëpp yomb ëllëg nga noppaleku dootoo am dara lu la stress ci àdduna bi ku nekk boo xëyee yaa ngi xelaat fooy jaar ba sa affaire baax nga noppale ko nooy def bu ëllëgee coono wàcc la nga dëkk ci àdduna bii di noppale ko ñun ñëpp loolu lañuy ñuy xëy di ko daw di ko wuti ji te mbokk yi xamuñ ne noflaay noppaleku amut àdduna yàlla bindut noppale ko ci këru àdduna àdduna naflaay amu fi këru coono la këru kër këru ñàkk la këru feebar la këru nattu la këru dee la noflaay amut ci àdduna laa raaxata fi dunia kuy séentu ne da ngay dëkk ci àdduna bii nga noppale ko fi doo am benn stress dara du la naqari doo mànkile dara sa lépp di dox yàlla mayu ko kenn kenn amu fi koo gis ci àdduna lu lum bari bari bari teraanga am na lum bëgg am na lu manqué ci moom lu ko teree kontaan laa tasun anna dunya qad kamulat li ahadin bul mës gëm bul foog mukk ne àdduna am na kenn ku nekk ci àdduna ku sa mbir sotti yépp li nga bëgg yépp yàlla may la ko yépp dara manqué wut amut ci àdduna mook sëlmaxa bi téye et bi nga naan ko ndeyjoor ak càmmoñ xam nga luy soxlaam soxla àdduna bi yépp liy soxlaam lenn la mooy yàlla may ko bët muy gis di doxi soxlaam comme ñépp ki ñuy puus muy dem ba di puus boppam walla di watatu soxlaam yépp mooy yàlla may ko tànk yu wér yu mu mën a doxe soxlaam rekk ki yàlla may wér may ko jàmm soxlaam yépp mooy poos bi fees jàmm ji ko yàlla may yëpp ak wér gim ko may yëpp boo dajeek moom na ko booy nakam mu ne la kuulut de kañ lay kuul mooy bu poos bu feesee ci lay door a kuul xéewal yi ko yàlla may yëpp gisu ko lu tax mooy dafa dafa am lu mànkile mu tax kuula kuulagut kon ki wér am jàmm mu ngi ne ngéej am allahu akbar amul kenn ku sa àdduna sotti moo tax jibril ne bu xoolee nit ñi ñuy kër-këri ku ne di daw di duuri waar di lijjanti ji ree daf koy jàpp ndax ku ne ngi kër-këri naan su ma jotee ci nangam bis bu ma doonee nangam bis bu ma amee nangam dinaa noppaleku te keroog boo amee loolu bëggaat leneen kon kañ ngay noppalu kañ ngay noppalu moo tax yonent yàlla Muusa noon yàlla rabbi najinni min alsinati naas yàlla dama bëgg nga musal ma ci làmmiñi nit ñi ndax nit ñi dañoo mën a xaste nit ñi dañoo mën a tuumaal ku baax te man dama bëgg ci dund ci àdduna te bu kenn teg ci suma der dara lu ñaaw yàlla na ko Moussa li may ñaan man mi leen bind sax awma ko xanaa déggoo liñ may wax maa leen bind man yàlla jox leen wërsëg waaye ñi bari ci ñoom dañoo gore hadi dañuy lekk ba suur romb ma fi dem sant keneen gërëm ko xanaa dégguloo tuuma yiñ may teg man yàlla man mii seen borom ak liñ may sosal bis bu nekk naan yàlla dafa am doom te weddi dinaa ba sonn ne awma doom waaye bis bu ne ñu ñu sosal ma ne maa jur eesa dem nañ sax ba ne man dama nay man yàlla am ñu ne yàlla sax loxo bi dafa dog yàlla waxul ci joxe dara waxul ci saraxe dara loxoom dafa dog mu ne ko lii yépp wax nañ ma ko teg ma ko ci ay sos ak ay tuuma te maa leen bind ndegam man mi leen bind maa muccut kon keneen ku dul man bum seen tunde dana mucc Mhm. kon àdduna noflaay amu fi bu ko fi séentu amu fi amut xam nga noflaay enjoy noppaleku dund boo xam ne amul benn stress soo ko bëggee bu ko wut ci àdduna de fii amu fi fii loo bari le bari le bari le sampal kër na nekk manson amal lu ne waaye boo lekkee ba suur tëdd bëccëg di nelaw sax xali njaboot gi nga jur ñooy njëkk a yàq sa nelaw yi duñ la bàyyi duñ la may jàmm nga nelaw yàndoor fii nelaw yu baax sax yàlla mayewu ko fi nelaw dëgg yàndoor kenn du ko yàq soo ko bëggee yóbbaaleel jëf ju baax ci biir bàmmeel boo fa duggeek moom muy noor di naaj di tàng ngay nelaw nawet jot muy taw di sotti ndox ngay nelaw te kenn du ko yàq ba yowmal xiyaam noflaay nag soo ko bëggee dëgg dëgg dëgg dëgg fooy noppale ko du ci àdduna bii de noflaay boo ko bëggee nopp lu dëgg boo ko bëggee xaaral ba dugg aljana foofa la foofa la jaam di noppale ko fiiha maa laa aynun ra'at wala usnun samiat wala xatarun ala qalbi bashar kër googu mooy kër goo xam ne boo fa xasee dugg sa ngay ci teraanga yoo xam ni àdduna déglu sabar déglu ndaga pile hip hop ay reggae bu duggee aljana dinga fa dégg façon yëngu yoo xam ne bànneex ba mu lay jox mësuloo déggee mësuloo dégg ci sa nopp lu neexee noonu ding fa mos ay xeeti teraanga yoo xam ne bànneex ba nga yëg sa xol bi mos ta yëg bànneex bu toll noonu te amul feebar amul màgget amul dee amul bañante amul tongowante amul joxe dépasse amul fay lu amul xotti yére amul ñawlu ji yal yàlla may aljana soo bëggee noppalu xaaral ba dugg foofu foofu ngay noppaloo waaye fii këru nattu la këru stress la këru bëree la këru bañante la këru noonoo la këru ñàkk la këru feebar la waaye këru dee la yépp a fi ne mhm. imaam ahmad ibnu hanbal rahimahullah dañ ko laaj na ko mata raaxa fa qaala indama nadau awalu rijlin fi ljanna imam ahmad ibnu anbal yal na ko yàlla yërëm te gërëm ko nag dañ ko laaj na ko kañ la jaam di noppalu kañ la noppalu di am laaj bu am solo mu ne bu ñu demee ba jàmm bi teg tànkam ci biir aljana mu séqi bu càmmoñ bi nekk ci gannaaw mu fekk si bi ci kanam ñaari tànkam yépp nekk ci biir aljana jëmm yépp nekk ci biir aljana mu ne keroog la noppaleku di tàmbali keroog la jaam bi di tàmbali noppalu nag coono yi ko teg woon yépp dal di teggee ko ci kawam yàlla na ko tegatuma la dara léegi sa lépp maa ko ame lii yépp pour yow la imaam ahmed nee na foofu la noppalu ne foofu la naf naflaay ne waaye fii ku ko fi wut di ko wut ba sonn jiixaat ko ba sonn te doo ko fi am ndax loo foog ne boo ko amee noppalu ker boo ko amee keroog ngay gëna a sonn mhm. wallaay ndeysaan gisuloo ne xale bi juddu xale bu juddoo def ne ngéej manal boppam xale bu juddoo mu ngay laajte kañ lay màgg fa tiflu yaqulu mata akbar xale ngi naan kañ lay màgg ndax xale bi foog na ne ndax bu màggee noppalu ba ko yàlla màggale ba mu xëy nekk waxambaane mu mos li nekk ci waxambaane yaa ne ndekke waxambaane yoru ko su ma xamoon ne waxambaane nii la métti konoon ma ñaan yàlla mu bàyyi ma ci xale bi ma nekkoon ndax bi ma nekkee xale ci nguur laa nekkoon ñu di ma sang di ma solal di ma jox may lekk di ma di ma yenu duñ nangu sax ma dox ñu def ma comme buur ku ma saaga ñu ne xale la lu ma def kenn duma topp dara bi ma nekkee xale dama foogoon ne nekk waxambaane moo ko yor mu dem ba nekk waxambaane xam li ci waxambaane yaa ni métti <coughs> waxambaane dañ koy bàyyi boppam rek mu res boppam di fóotal boppam léegu-léeg mu toggal boppam léegu-léeg mu dóori waar pour mën a am ataaya mën a jënd jiin bu sol mën a jënd dàll dem ba yàgg waxambaane bi ne dund bi may dund dafa metti dafa stress yoru ko su ma amee jabar ci lay xàppi ci lay fiix ci lay noppalu mu xëy takke jabar yàlla yenn ko coonop yore jabar mu ne allahu akbar su ma xamoon ne yore jabar nii la métti konoon ma desoon ci ñàkk jabar mu dem ba yàgg mu foog ne ndax bu juree ay doom bu doom yi baree dana noppaleku mu jur ay doom yu bari doom ya màgg coono ba gën a yokk gis nga ki am benn jabar day dem ak benn jabar bi ba yàgg féex la bëggoon bànneex la bëggoon noppalu la bëggoon moo tax mu takk jabar pour ut ku koy toppatoo mu am benn jabar doxal ba ci kanam mu ne benn yoru ko mu dem wuti ñaareel amee ñaareel <laughs> foog ne ni ndax bu amee ñaareel ci la affaire yi di door a baax mu door a fiix am jàmm mu am ñaar mbir yi gën a métti mu ne waaw tey ma raasaatu ji ñett bu amee ñett it ne ma raasaatu ji ñeent allahu akbar gis nga ki am jabar daf naan ngiij dellu ci célibataire ngir coono bi nekk ci yore jabar ak njaboot mu ne xanaa suma ma màggetee noppaleku ñépp nag daw wuti màgget foog nañ na ndax ku màgget noppale ko nga dem ba màgget mbir ya gën a métti tey li ci màgget mag yaa lañ bëgg waaye mag yaa moo métti boo màggetee booy toog di yuuxu booy tëdd di yuuxu booy jog di yuuxu buñ ne bëreet yaay mujje jóg buñ ne toog leen yaay mujje yegg suuf li ci gën a naqari nag mooy da ngay gis ñépp di doxi seen soxla yi di defal seen bopp nga bëgg a dem tànk yi bañ uum yi nangootu na la li ma la yóbbu nag doy na fu mu toogal nga toog <coughs> bu bu bu tànk yi bañoon rek yem ci mu neex waaye bët yi dañoo solidarité gis-gis bi bët yi amoon neex lool leer nañ nga xëy rekk mu diim leeraay bi wàññeeku ngay gis lu tuuti mbokk yi di mën a bokk ci programme bi ci two three two three two one three mooy nomba bi ngeen mën a bokkee ci seen programme diine ji two three two three two one three kon Makiya moom lañ bëgg waaye neexut lu métti la boo ca xasee àgg bokkatuloo ci société bi liy dox ci àdduna bi yow bokkatuloo ci ñi koy doxal tànk yi mënatul a dem buñ la xaaree ci àdduna dara du dox bët yi dafa leeroon di gis léegi gis bi neexatut sa sët yu bari ak sa doom yu bari xàmmeetoo leen xanaa ñu wax nga dégg leen nopp yi dafa neexoon dégg ba dem na léegi kuy wax ak yow dalay jege walla mu yuuxu ca kaw nga door koo dégg bëñ yu dëgër nga amoon li ëpp yëpp rot na guru sax dañ la koy soccal wallal la ko yàpp wi nga gënoon a bëgg mënatoo màtt dañ koy wal bam nooy togg ko ba mu ñor bay bëgg a sey nga door caa man dara biir bi da daan lekk ba fiiw ba óobaloot léegi boo tibbee ñaari tibb mu fees sa biir yaram wi dafa rafetoon lool ngay sang di diw di defar tey taar ba dem na ñaawaay ñëw na yaram wu rafet wi dem na yaram wu ras wu màgget wi ñëw na ñu jël alaaji saar ci line bi surtout alaaji dellu si waat ci waxtaan wi salaamaaleykum alaaji oustaz naam ñu ngi lay ziare bu baax ñu ngi lay delloo ziar Sarr ñu ngi lay ziare bu baax jërëjëf Sarr waaleykum salaam euh, bismillah alaaji ñu ngi lay ziare bu baax waaw waxal rek te bañ a déglu sa bopp ci télévision bi waaw waaw waaw ñu ngi lay ñu ngi ndax rafetlu waxtaan wi. jërëjëf. waxtaan wi rafet na lool. Mhm. ñu ngi lay seetaan wax dëgg yàlla dëggal sa waxtaan bi yëpp. jërëjëf. yal na yàlla yokk sa xam-xam. amin amin Sarr amin yal na yàlla may la wér. amin amin yaa rabbi amin wax dëgg yàlla ñu ngi ñu ngi ñu ngi déglu daal ñu ngi déglu moo ñu gën a sàkkool. nañ bokk jëriñu ñun jërëjëf jërëjëf. kon mag yàngu foogoon nga ne soo demee ba mag ñëw dinga nga noppalu mag dikk nga gën a sonn moo tax mag moo ci gis boo ko laajoon lu bëgg tey mu ne su ma amoon li ma gënal ci suma àdduna yàlla delloowaat ma ma nekk ndaw mag yépp màgget yépp delluwaat ndaw lañ bëggaat delluwaat ndaw rekk <laughs> te dellu ndaw weesu na wallaay ndeysaan kon kullan yabxasu an irraxa wala raxata fi hadihi dunia ñëpp noflaay lañ daw di ko wuti fu ñuy xàppee la ñuy uti fu affaire yi di nooyee fu seen mbir di doxee coono wàcc leen ñépp loolu lañ daw di ko uti ku ne nag fi nga foog ne boo ca langaamoo walla boo boo boo ko jotee noppalu yaa ngay góorlu pour joti ca loola ki ñàkk foog ne ne ndax bis bu amee noppalu waaye dafa laajut ñi yàlla dénk wërsëg ñu doon ay borom am-am ñoo la gën a sonn léegi ñu yegg ci fay seen téléphone yi walla ku ma laajte ne ko newuma fi ñu jël Ablaye Ba diwaanu. allo salaamualeykum Abdallah. waaleykum salaam. naka waa Kawur. ñu fi rek. bismillah ba alhamdulilah ñu ngi lay jërëjëf ñu lay ñaanal yal na yàlla nangu ko te boole ñu ko amiin waxtaan bi neex na lool mhm. maa ngi toog ni ci ko seetaan ndeysaan jërëjëf baax na jërëjëf yal na yàlla yokk man ñu ngi nuyu seen alkaali bi alxaaji Moustapha Ndiaye baax na jërëjëf jërëjëf di nuyu oustaz Amad Gueye yëpp doomi alaaji Baabu géey yëpp ñu ngi leen di nuyu macha allah di nuyu imaam it nag. waaw ah, jërëjëf jërëjëf jërëjëf. jërëjëf. tabaarakallaahu Abdoulaye Ba woote fële ci Kawur ñu ngi koy nuyu bu baax di ziyaare waa Kawur yépp Woof Town Diané ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziyaar di ñaan yàlla yokk leen jàmm yokk leen sutura. kon ñëpp loolu lañ daw di ko wut muy naflaay te ndekk li ñuy daw di ko wuti ci àdduna amu fi amu fi wallaay ndeysaan amu fi wallaay ndeysaan yonent bi alayhi salaatu wasalaam imaam Tirmisi daf ñu nettali ci xadis jëlee ko ci abdallah yal na yàlla fayal ñu leen nee na yonent bi dafa mës a tëdd ci dogitu basang dogitu basang mu jog genn wàll yaramam yépp nekk ay bant ak ay peppi suuf saxaaba yi xool yonent yàlla Muhammad jooy na ko yaa rasulallah ku teddee ni yow ah ñu jël ajaratu ara jàmme a ah, alaaji jàmme bismillah salaamaaleykum salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam alxaaj nanga def alxaaji yàgga jàmme oh alaaji yàgga jàmme waaw laata kundaa oh sunu xarit na nga def nag sunu sunu soppe naka waa gi ñu ngi ci jàmm bu baax. a ah, macha allah waar wi neex na kontaan nañ trop. jërëjëf jàmme jërëjëf jàmme. ñu ñaanal la yàlla yàggal la fi maye fan bu daal wéegu yaa maye mujj gu rafet. amin amin yaa rabbal alamin amin waare bi neex na kontaan nañ macha allah. yal na yàlla yokk xam-xam bi. amin jàmme amin jàmme amin. dëgëral la ubbi bunti wërsëg yi saxal ko. amin amin jàmme amin yaa kontaan nañ torop kontaan nañ. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf. jërëjëf oustaz jërëjëf. kontaan nañ kontaan nañ kontaan nañ kooku sunu kilifa la. di alxaaji yaaga jàmme nekk ci Latrikunda fi di nit ku baax macha allahu taala eh, ku bugg lislaam ku bugg yàlla fa tabarakallahu waaye ku fonk xam-xam ak boroomi xam-xam yi yal na ko yàlla fayal ñu ngi koy nuyu di nuyu soxnaam ak njabootam yépp di ñaan yàlla yal na ko yàlla yokk jàmm yokk ko sutura yonent baa ngoog ku toll ni sayduna muhammad ñàkk ba tëdd ci dogitu basan mu jog bant yi nekk ci yaram wi suuf si takk ci yaramam saaba yi xool ko jooy na ko ku baaxee ni yow ku sellee ni yow nga nekk sangi bindee ñu jël kumba kande salaam barakaatu Baafuloto waaleykum salaam Kumba. waaw naka def. naka nga def. waaw maa ngi si jàmm alhamdulilah Oustaz. naka waa Baafuloto. gaa yëpp ñu ngi si jàmm def dara. yal na jàmm yàgg bismillah. amiin amiin amiin eh Oustaz Sawaare bi ne nga ma trop trop trop trop. jërëjëf jërëjëf. wallaahi. ndeysaan jërëjëf. ñu naa ñu naa trop trop. yal na jàmm yàgg. amiin amiin yaa rabbi amiin. yitee amin yaa rabbal alamin amin amin amin yaa rab jërëjëf ndeysaan yonent bi jóg bant yi taq ci yaram wi ak suuf si saxaaba yi xool ko jooy na ko waxuma yow sax waaye buur yi nga xam ne ay ndaare lañ nitu àdduna kese lañ di buuru Kisra ak buuru Kaysar nga xam ne ay buuri àdduna lañ ñoom ci ay wota lañuy fanaan ay lal yu nooy népp yow nga gën leen fuuf di tëdd ci dogitu basan ba muy yàq sa yaram wi te nga ñoo may ñu defaral la lal bu nooy nga di ci tëdd ndax yow yaay suñ sëriñ yaay suñu sang yaa gën ci mboolem li yàlla bind mënuñ laa seetaan ngay tëdd ci dogitu basang te lu yàlla bind yaa tax may ñu ñu defaral la lal moo gën a rafet lan la yonent bi tontu saxaaba yi daf leen ne maali wa maali dunia ana man ak àdduna saxaaba yi ne ko nga ne mu ni leen ana man ak àdduna man àdduna taxumaa jóg man àdduna taxumaa jóg awma soxla ci àdduna man àdduna dafa nekk benn gaadin benn tool bu may bayee pour suma àllaaxira baax waaye soxlawuma fi dara su ma soxla woon àdduna kenn du ma ëppale xam ngeen nu mu mel ak àdduna ñu ne ko déedéet mu ne mu ngi mel ni ku war fasam di tukki di dox ci naaj bu tàng naaj bi tàng jir mu jot benn karu keru garab mu taxawal fas wa ci ron ker gi wàcc ci ron ker gi toog di féexlu ba tàngaayu jant bi wàcc mu waraat fasam continuer tukkim noonu laa mel ak àdduna adduna defuma ko kër dama ko def benn birig benn jaarukaay bu may jaar rek allaaxira ma tax a jóg ndax yàlla nee na ma wala al axiratu laka min al ula moo tax yàlla wax ñu ci alquran ne yaa ayuha nnaas inna waxdallahi fala taqurannakum alxayatu dunya wala yaqurannakum billahi alqaruur yàlla nee yen nit ñi waxul yéen jullit ñi de yaa ayoon naas la wax yaa ayool muminuun yaa ayool kaafiruun benn bokk ceeg sa morom bu ne yaa ayoon naas nag ñépp la dugal jullit ak ku dul jullit ku baax ak ku bon ñépp la alquran di waxat yàlla nee na yéen nit ñi eh na ngeen xam ne dëhël bi leen yàlla dëhël appointment bi mu leen jox wax leen ne àllaaxira day day am lim leen lim leen wax noonu dëgg la na ngeen ko waajal te xam ne day ñëw bu leen àdduna bi wor ngeen topp bànneex yi topp bakkan ba fàtte seen farata yi seen diggante yàlla ñu jël amadu Matar Thiam ci line bi salaamaaleykum Amadou salaamaaleykum mel na ni Amadou mën a gu ñëw dégganteeg moom. asalaamaaleykum wa rahmatulah waaleykum salaam Amadou. ah ñu ngi laa siyaar yow Oustaz. naka nga def. ah alhamdulilah sant yàlla. mu ngoog naka waa Ibo Town. ah Ibo Tall mi ngi fële ak réew mi. mu ngoog mu ngoog mu allah. ah di ah, di la njaaraamaal. jërëjëf. di la siyaare. jërëjëf. di la ñaanal. Mm-hmm. di ñaanal ñëpp. Mm-hmm. ah kontaan nañ ci waxtaan wi. Mm-hmm. yenn yàlla saxal ci saahir ak ci baatin. amiin amiin yaa rabbal aalamiin. yenn yàlla wëlu ci saahir ak ci baatin. amiin amiin amiin yaa rabbal aalamiin. yal nañ dégg sa waxtaan. Mhm. déggee ko xol. Mhm. te topp. Mhm. topp ndigal. te bàyyi tere. incha allah. ci daraja yonent bi. ci daraja alquran. ci barke Makka Medina. amiin amiin yaa rabbal aalamiin. ci barke ma zalika ala ganzi. amiin amiin yaa rabbal aalamiin. jërëjëf waay jërëjëf. jërëjëf Thiam jërëjëf. ndeysaan asalaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. jërëjëf Thiam ndeysaan yàlla nee na yéen nit ñi na ngeen xam ne dëhëlu yàlla bi lim leen dikk ne dana ñëw bàyyi leen ci xel yowmal qiyaam lu am la te dana ñëw. faxe leen nag ba bu leen àdduna wor àdduna këru workat la benn jongama la joo xam ne waxtu wu ne day sañse ak a man boppam mën a deferu bari takkaay bari ay feem ku siiw ku nekk mu ciis la na la yow laa nopp ku am wërsëg ku ne mu ciis la na la yow laa nopp ndaw lu toll ci digg jamonoom mu ciis ko na la laa am nopp alquran ne bàyyi leen ko xel nobul kenn orkat la ku man rekk lay àndal ku am rekk lay àndal ku wir rek lay àndal bis boo ñàkkee mu bàyyi la seeti ku am kuy dund lay àndal bu ànd ak yow nax la ba tëral la nga dee mu seeti ñiy dund bàyyi leen ko xel nobul kenn naxekat la ñu jël ay satu Jàlloo bundung bantaba nekk ci almuxtaar family ay satu Aysatu naam yaa ustaas waaleykum salaam wa rahmatullah nuyu nañ la ziyaar nañ la fay naa la bu baax siyaare la di na ñaanal jàmm di ko saako si yow yal nañ ko bokk ñun ñëpp man la sa soppe almuxtaar Aysatu Jàlloo bundung bantaba moom lay wax noonu borom bundum li nga ne waxtaan bi macha allah yal nañu yàlla may dee ak toofa bokk ci jigéeni almuxtaar yi <laughs> waaw ñu lay ziyaar bu baax di ziyaar sa borom kër ak njaboot gi ñu laa delloo ziyaar bu wér wér ziyaare sa goro yëpp ziyaare ñoom mm-hmm. xajjitu jàllo ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñu laa delloo ziyaar Dramé Kandji nayu sa soppe yooyu almuxtaar famille yëpp na góor ak jigéen mag ak ndaw macha allah yaa Oustaz Dramé jërëjëf waaye. kontaan nañ bu baax a baax a baax a baax. jërëjëf dégg nga ne waxtaan yal na yàlla may fan bu ko daal wér yéena wér ak wér ne. di la yóbbante nuyoo nag ci suma tooma Abdoulaye. waa baax na dina ko dégg incha allah. ndeysaan nee na dellu na ci jàmm ma ne ko yal na yàlla gën a ubbi wërsëg wi foofa. amiina amiina amiina amiina. yokk ko jàmm yokk ko. yow yal na yàlla ñu wéral sa si kanam ak kanam yàlla bàyyi la fi may ak yu bëree bëree bëri amin amin amin dunda bi dunda saati la boole ko wér amin jàllo amin jàllo amin waay amin ndeysaan jërëjëf waay Ibrahima jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf kooku ci soppe yi ci soppe Al family di groupe boobu ñu tuddee borom jikko yu rafet yooyu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa di ca topp waaraate yi ñuy def waaye di ca topp waaraate fa tabarakallahu boroom xam-xam yu bari ci réew mi di fa jàng seen diine di ko fa leerlu yal nañu leen yàlla fayal rawatina moom nag ay satu fa tabarakallahu kenn du moom yal na ko yàlla yokk dimbale def barke ci njabootam gën a suuxa déggoo ak jàmm ci digganteem ak borom këram def barke ci njobootam yépp te may ko fanu gudd ak wér-gu-yaram kon mu ngi noonu ndeysaan mu ngi noonu fa tabaarakallaahu mel na ni rek euh, tabaarakallaahu waxtu wi lim ñu cërale woon mu ngi jeex si waaye yonent baa ngoog yàlla nee na faxe leen ba bu leen àdduna wor orkat la waaye faxe leen ba njëkk koo or laata mu leen di or fala taqurannakum alxayaatu dunia wala yaqurannakum billahi alxaruur waaw fexe leen bu bu leen àdduna woor mu tax yonent bi noonu man àdduna taxumaa jóg ñu ne ko lu la tax a jóg mu ne àllaaxira moo tax li ñuy tuddee noflaay bu sax ak texe dëgg dëgg dëgg dëgg ak noflaay dëgg dëgg dëgg ak xéewal gu sax dëgg ak texe dëgg ca yàlla mooy jaam bi yàlla baaxe seppi ko ci diiwaanu wéy texe had yi bind ko ci diiwaanu soxadaa yi kooku mooy ki texe dëgg ki yàlla génne ci téere ñi war a dem safara bind sa tur ci téere ñi dem war a dem aljana kooku mooy ki texe mbokk yi gañe dëgg mooy loolu gis nga kopp boo mën di gañe ci àdduna ah awoot boo mën a gañe ci àdduna lum rëy rëy rëy gannaaw gañee guloo ngërëmu yàlla gannaaw yàlla bindagut la ci ñi war a dem aljana gañee goo dara alquran nee na fa man suxsiha an innaar wa udxila aljanna faqad faasa ku yàlla seppi ci ñoñ safara dugal la aljana alquran nee na kooku mooy ki texe kooku mooy ki mucc kooku mooy ki raw raw na te kenn duutu ko jotati waaye loo mun a am ci àdduna lu mu bari bari gannaaw jubóohuloog yàlla gannaaw yàlla yërëmut la gannaaw yàlla jéggalut la gannaaw amaguloo ngërëmu yàlla gannaaw duggaguloo aljana amagoo dara kon coupe bi gën a réy mooy faxe ba gañe ngërëmu yàlla gañe yërmande yàlla baax gañe boo taxawee bis penc ci kenn du la laaj kenn du la xisaab dangay mel ni président bu wàcc rek ñu salutal ko duural ko bàkk bi rek mu dox dox bi dem yoonam waxtu wi cërale ak yéen ñu ngi ñaan yàlla mu boole ñu ci ñi nga xam ne alladina yastamiuuna alqawla fa yattabiuuna ahsana ngeen xam ni in uridu illa al islaax wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib suñ yéene moo doon wax lu rafet wax lu baax wax luy defar jikko yi wax lu ñuy gën a jubale ak sunu borom wax luy defar mbokk gi taaral dëkkandoor bi buñ ko ci amee ndimbalu yàlla la bu ci njuumte amee suñ matadi la te xam ne alkamalu lillah yàlla rekk moo mat wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu fi amaanillah